mooy ñiy rey gone yi téye leen seen doom yi bu ñu waree gisuñ kenn du ñu rey kenn ku ni ne solution baa ngi noon de amul leneen police ak gendarmerie mënuñu aar lépp xëy na président day waxee ni mu toll ci njiitam waaye xam na ne xale yi ci mbedd mi lu ci police ak gendarmerie ma kenn ku ne yaa jur sa doom téye ko sa kër kiy këf bu gisul lu mu këf dana këf Ah. moom nee na bu dee siiru day toj bopp ba rek bu ko defee du lekk ginaaram mais téye leen seen doom yi loolu mooy dëkk mais xëy sànni sa doom ci mbedd mi muy taxawaalu yow bëggatoo koo téye soo xëy a ci dem leen foy bu ngeen ne dem leen foy de dem leen ñu for leen nga wax dem leen ñu fori leen baa ñooy jël leen ñu fori leen ngay wax téye leen seen doom yi bu dee ci daara yi liñ ciy wax naan xale yi yelwaan solution bi lii rekk la ku joxeeti sa doom ci dëkk ci daara wutal ko fa génn kër joxel ko fa dundam mu féetee fa di jàngi dootu yelwaan li ma wax mat na solution wala matu kon Macky Sall jàppal ci bii manoo ci dara ci ñu la bëgg a dugal waaye ku ne gis ngeen doom yi Macky ci mbedd mi tubaab yi xotti mbedd mi gis ngeen seen doom yi ci tali bi dox ci mbedd mi ngi doomu tubaab wala ko xonq mu ne ngi watar watari taati neen ñun ñu rek ñun rek doom kenn du ko jur sànni ko saytu leen xale yi téye seen njaboot yi ci kër yi bon bi nga jël di ko fay na xëy téye xale yi tëj buntu kër gi bu kenn génn waaye xale yi buñ xëyee ñeen ca bal bi may dem daara Jolof dama ñëw ba ci benn dëkk may laajte ndax daara su ne ma ne benn xale kaay mu ne ma ma ñëw rek départ xam naa damaa teg ci ñiy jàpp xale yi daa defe ni kii ñuy rey xale yi ci lañ bokk mu daw ba ma fa asignage ki ma àndul sama xarit la asi ma xoolal li xew rek tax mu daw fi mu ne xale yëpp jot nañ information mais musul leen moo na dee seen xari laadum yi yéen a leen def ci ruq yi kenn du leen gis am xar dong nga dugal ko ci ruq boo xam ne sàcc du fa yegg di ko jox dund bu baax xar xar rek sa doom nga bàyyi ko bërgël ko pour la